Senghane Senghor ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax madame. waaw yow nga bokk ci Diamaguène euh, euh, troisième manda di ab plateforme bi nga xam ne euh, société civile yi ko daal di organiser ngir xeex troisième mandat waaye itam nga nekk ci rajo tey ngeen bëgg amal ab tournée ci guide religieux yi moo tënk boobu la tournée. waaw merci madame ci invitation bi. xanaa ñu fàttali rek ne am na quelques semaines dañu daje woon waxtaan mooy ay organisation de la société civile ñu mën cee lim ay RADDHO Afrikajom Center Ligue sénégalaise des droits humains FRAPP et Y ak yeneen personnalité indépendante dañoo daje woon pour teg benn cadre boo xam ne cadre buy dox jàmm la parce que dañoo jàpp ne Sénégal soxla na jàmm soxla na ñu di fi wax jàmm te bokk na ci liy andi jàmm mooy président feddali la mu waxoon parce que wax na fu ne ne moom mënul nekk candidat te dañoo gis ne ñi mu àndal souvent dañuy andi waat débat boobu di ci wax loo xam ne daal daanaka jàpp nañ ne dafay tàngal climat social bi ci tontu yi ñuy jot mais ñu xam aussi ne buñ ko yebee ci gaal googu ñu ko bëgg a ñun xam nañ la muy jur parce que loolu jaaroon na fi mm-hmm. moo tax ñu ne nañ teel a tase waxtaan. xool nu ñuy def ba mën a am jàmm te liy andi jàmm lool bokk na ci ñu adressé woon ko nag benn leet le vingt sept octobre bale passé pour ne ko wax dëgg yàlla luy jot jot na bëgg nañ nga confirmer la nga doon wax ci teel ndax mu fay wax ji parce que loolu bokk na ci liy seddal aussi climat social bi mm-hmm. ensuite ñu waroon a liggéey ci benn charte boo xam ne organisation yeeg nit ñi ci ñëw yëpp daje lool mooy mooy do expliquer nan lay doxee nan lañuy nekkee ensemble bi loolu noppee nag dañoo bëgg a dem ci yeneen organisation société civile yi toog waxtaan ci ak ñoom pour ne leen ah, lii ak lii ak lii moo sabab initiative bi fii ak fii lañ jëm buñ ci jógee aussi danañ ci wax aussi ak citoyen yi mm-hmm. en tout cas citoyen yu bari parce que affaire de citoyenneté la bu phase boobu passé danañ dem nag ci kër Serigne si jéem a waxtaan aussi ak ñoom expliquer leen li ñuy def fàttali leen nit li ñëpp xam parce que troisième mandat bi kenn amul loo ciy wax sa li fi xew jaar fi ñëpp ko fekkee déggal ko seen bopp ñu fàttali leen rek parce que ñu nit suñu rôle mooy bu ñu gisee luy ñëw ñu àttu suñu rôle mooy ñuy alerter balaa yëf yi daanu moo gën ñu toog ba yëf yi daanu suñ ko ñuy door ay solution mm-hmm. loolu daal moo sabab initiative bi ci gàttal d' accord ñu wax ci mbirum euh, Pape Alé Niang di euh, journaliste bi nga xam ne tegoon nañ ko loxo euh, def na léegi benn weer jamono ji sonn na lool ndax wérgu yaramam demeetul noonu ba tax na mi ngi wax sax bu ko kenn ñëwaat seet si ndax wérgu yaram moo ko ko mayewul Euh, ca wet ga gis nañu association de presse bi euh, bëgg nañ boycotter li nga xam ne mooy activité euh, gouvernement bi di organiser bu dee suba bu dee tey kenn amul sax liberté provisoire mbirum Pape Alé Niang lu mu la inspiré maanaam li mu ñu inspiré mooy Pape Alé Niang waruloon fanaan sax benn guddi kaso parce que Pape Alé journaliste la te journaliste ci cadre liggéeyam waruñ ko cee arrêté d'ailleurs li lay woon ne loolu warul muy am mooy journaliste yi bind nañ fi lu bari di début deux mille ba léegi mooy ba ñu arrêté jëmbal Diagne ci lu mel nii moom ñu ko arrêté mhm. déggaatuñ fi kuñ arrêté mhm. kon journaliste dañ ko war a bàyyi mu liggéey tranquillement parce que journaliste d'investigation liggéeyam ci société mooy dem di wëri li ñuy làq moom mu di ko feeñal parce que loolu mooy tax ñun ñuy xam li xew ak yeneen citoyen yi kon kooku dañ ko war a bàyyee benn liberté bi dañ ko war a bañ a xoqotal pour que mu mën a def liggéeyam nan la waree mm. te journalistes yi nag ñoom ñooy sàmm démocratie bon gouvernance bu taxawee ñoom ñoo koy taxawal parce que journaliste moo yor mission boo xam ne moom mooy wax ak public bi ñun li ñuy liggéey ak li keneen di liggéey moom moo koy jottali public bi kon kooku baax na mu liggéeyee liberté bu dee dañ bëgg a tabax réew mu libre réew mu démocratique mm-hmm. biñ ko arrêté ci condition yi ñu xam defoon nañ fi benn marche journaliste si ñun société civile ak ñëpp ñoo xam ne ils sont épris de de justice marche bu rëy ñu waxtaanoon ci yónnee état bi ay message malheureusement def na ay semaine état bi déggul ba léegi ñu maintenir ko en prison ba mu jàpp moom ne dafa war a def grève de la faim parce que dañoo violer ay droit liir nañ texte bi ngay wax mu ne néew na doole néew doole boo xam ne mu ngi jéggalu nit ñi mais mënta recevoir il a raison li ñuy ñaan état bi mooy mu dégg te libere ko mu dem këram parce que sinon lépp lu ci xew suba ci responsabilité entière yi état bi lay tegu maintenant nag journalistes yi ak ñëpp ñi démo démocratie ñor comme wax nañ ak état bi te déggul mais xeex moo fi des te xeex nag day dem crescendo peut-être duñ utiliser léegi tous les moyens mais mën nañoo dem ba yegg ci ay journée sans presse parce que loolu aussi amoon na fi alors donc voilà donc bu état bi déggul na xam ne agenda bu ñuy dérouler lay doon boo xam ne te ñun dañ koy soutenir loolu wax nañ ko mu leer parce que ñun lépp luy dëgëral démocratie dañ koy soutenir. Euh, ñu wax li nga xam ne moo xew ci assemblée nationale ñëpp di ko ñaawlu ak euh, violence ñu teg ci euh, député bi di Amy Ndiaye Gniby jamono ji ñaari député pur yi ñu ngi leen di wër ndax jàpp nañ ñi dañoo daw làqatu tey est-ce que jotul ñu amal ay médiation ngir rek jàmm mën a ñëw ci assemblée nationale violence yi jeex. <laughs> waaw c'est vrai madame que li xew assemblée ñëpp ko gis te ñëpp koy naqarlu. mais nag warul bett kenn parce que doorante aussi xeex doorul yo beesul assemblée mm. législature yi fi jaar yu bëri gis nañ ni xeex am na fa day am aussi ci yeneen assemblée yi am ci adduna bi mais nag ay góor yu dóor jigéen comme niñ ko gisee loolu moom lu ñuy rëccu ak di ko naqarlu la waaye nag nañ wax aussi jigéen yi nañ bàyyi saaga yi parce que mbubam député buñ demee ba solal la ko di la wooye honorable am na loo xam ne warut la dëgg la li leen yóbbu assemblée mooy ñu dem fa di défendre suñuy droit di fa voter ay loi ak di fa tenir discours yoo xam ne dafay avancer loo Sénégal ku ci am loo xam da nga koy wax amalul njëriñ Sénégalais ngir yàlla noppil te nga toog bu weer dee ñu fay la ba sa mandat jeex nga dem ñibbi hmm. loolu daal mooy liñ ci war a wax te nag difficulté yi am biir assemblée justice mënu ko régler d'abord un beneen pouvoir la boo xam ne dafa am fonctionnement autonom mais ñoom député yi ñi leen fa yebal ak sénégalais yi ñoom ñoo leen war a wax ne ñun yebaluñ leen assemblée pour lii dañ leen yebal assemblée pour que ngeen défendre ñu défendre suñuy droit mais loolu sama gis-gisi bopp la dama jàpp aussi ne ñi fa représenté nguur gi préparé wuñ leen ni mu waree mooy ñu xamal leen ne assemblée bi ngeen jëm nii assemblée bu fi musta am ba Sénégal sosoo ak léegi parce que da ngeen fay tase opposition boo xam ne du ngeen ko ëpp trop doole daanaka droit bu ngeen am ñu am ko parce que li fa doon am mooy ëpp doole sa moroom noonu lu ñëw ñu ne nañ ko jàllale en procédure nañ ko jàllale vote sans débat boo bëggee wax ñu ne la noppi loolu moo fa mos am te loolu fi mu ne moo jaxee appliqué ak assemblée bi d'ailleurs sax defe naa ne loolu bokk na ci ni indi tension yi parce que ñenn ñi dañoo loon di dégg foofu ay ay argument contraire benn werante bi boo ñëwee ak yenn yi ñeneen ñi dindi ko ba mu set te loolu ci démocratie la bokk. Euh, justement qualité débat yi noo ko gisee ci assemblée waaw qualité débat yi moom bu ñu bu ñu bu ñu apprécier débat yi rek man jàpp naa ne débat yi niveau bi relevé wu na parce que gis naa fa député yoo xam ne xam naa ne dañuy gëstu ji. dañuy dem laajte ji dañuy ut yenn information yi balaa ministre tel di ñëw moo tax gis naa ci ñuy poser question yu baax yoo xam ne mën na amal njëriñ Sénégal parce que ministre yi demuñ assemblée pour ñu ñëw naan leen li nga fi def yëpp daa baax ba kenn amul loo ci wax loolu amalul njëriñ Sénégal li amal njëriñ Sénégal mooy député bi war na ñëw information question yoo xam ne bu ministre bi demee bu ci liggéeyee mu mën a avancer loo réew mi parce que dana ko jox lum xamuloon dana ko wax lum xamuloon dana attirer attention ci dara dana ko won ne lii moo gën a nekk urgence la ne loolu la ñuy xaar ci député ku ci dem te amoo amoo loo wax parce que amoo loo wax lu dul xas nit ñeeg saaga ñenn ñeeg encensé ñi ci des di leen tagg di leen waxal loo xam sax souvent nekkul bëgg lu leen neex la mais ngir yàlla noppil c'est ça parce que man damay joxe damay joxe exemple man ku mel ni par exemple Guy Marius Sagna parce que damay suivre lii xew assemblée jàpp naa ne man mu ngi def liggéey bi tax ñu yónni ko même bu fekkee quelque fois ñenn ñi jàpp nañ ne li muy wax dafa am erreur mhm. bu amee erreur la ministre bi wax ne non li nga wax lii ak lii ak lii mooy erreur bi parce que ministre bi il a tous les cadres de son ministère derrière lui kon lépp lu leerul ñoom war nañ ko mën a leeral mais loolu jarul xuloo jarul xeex Euh, ñu wax euh, ci garde rapproché yi gannaaw ñoom bañ leen tegee loxo euh, gis nañ fii itam beneen responsable PASTEF fadilu Keita moo nekkoon coordonnateur Nemmeeku Tour président Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la doon def ay fan est-ce que mun nañ wax ni acharnement la ci PASTEF. non bu fekkee man information yi ma am la parce que góor garde corps yi dañ leen arrêté woon parce que dafa am xeex bu amoon mu am ñu porte plainte suivre naa aussi xew. justice yóbbu nañ leen justice atte nañ leen justice jàpp na ne dañ leen war a tëj un mois bu fekkee ñoom loolu jàpp jàpp nañ ne warul wala amul équité mooy waruñ leen woon condamné nañu saisir cour d'appel c'est aussi simple que ça donc foofu pour moi bëriwul problème parce que en réalité na kenn mënul dindi ne xeex am maintenant ci responsable bi ñu arrêté démb bu dee d'après information yi ma am dafa am lu mu bindoon ci page Facebook am liir naa ko aussi parce que il faut ñu wax dëgg wax ne li mu bind ci page Facebook bi c'est à charge mooy dafa am ñoo xam ne daf leen chargé mel ni ku am yenn information yi kon yoon la ñu woo ko ne ko ah lii ak lii ak lii leeral ko parce que nit ku nekk nag na xam ne acte bu muy posé suba dafa war a nekk a face à ses responsabilités ñu ko wooyee war na koo mën a expliquer mhm. par contre li ci jara naqar lu mooy moom loolu wax ba ñu ko man dégg naa beneen responsable APR bu dëkk Koungheul boo xam ne wax na lu mel noonu lu ko gën a garaaw te déggaguma ñu woo ko mhm. comportement yooyu nag moom mooy indi li tax jiixi jaaxa di am ci xeli sénégalais yi mu mel ni dañuy def deux poids deux mesures mhm. parce que képp ku wax lu wone ne am na tuuti loo xam lu war a mën a leeral ci mbir mi rek war nañ laa mën a woon ñu déglu la par contre ki ñu arrêté démb dañoo violer droit ça il faut ma relever ko bu ñu yóbboon nit ci kaaf gi tribunal mu toog fa ba ngoon magistrat yi amuñ temps yi recevoir ko dañ koy yónnee mu dem fanaani ci benn commissariat li ñuy tuddee retour de parquet loolu violation droit la parce que liñ koy justifier mënu koo expliquer ay amuñ nombre bu doy ak bariwuñ ak liggéey bi dafa bare dafa nangam du raison pour que ñuy violer droit nit ça quand il faut le souligner et souligner que retour de parquet du avantage ci kiñ koy def mais dañuy violer ay droit parce que peut-être jël na ci ci jël nañ ci temps boo xam ne ci liberté la waroon a nekk ñu téye ci dans la détention mm-hmm. parce que deux choses moo war a nekk mooy ñu déglu la traité dossier bi soit ñu libéré la wala ñu yónnee la en prison. Euh, euh tension euh, sociale bi climat social bi jamono ji euh, politique bi yëngu na lool ak ca wet ga gis nañ secteur bu nekk syndicaliste si tamit ñu ngi yëngu-yëngal noo ko jàngatee. waa man c'est vrai que climat social bi ci réew mi moom ñëpp la jaaxal jaaxal nañu xaw nañoo tiital parce que réew aussi tension du ko yor tension baaxul ci réew surtout que. ñun dañoo nekk benn ilo bu paisible ci sous-région bi boo xam ne daanaka réew yi ñu wër yëpp tension ak insécurité moo fa dëkk moom lañ fa moom lañ fa dëkk di dégg kon ñun laajut ñu jëm ci sens boobu li gën mooy ñu dalal xel yi waxtaan ak ñenn ñi man jàpp naa ne situation bu tolloo nii am na loo xam ne opposition ak pouvoir war nañ cee mën a waxtaan ñu déggoo parce que tam bu bu bu fekkee ñoom ñëpp ñu ngi seen mission. ñoom ñëpp seen mission mooy li gën ci Sénégal ci lañ war a nekk te bu dee ci lañ nekk man gisuma problème fan la war a mën a nekk ba yenn yi ñoo waxtaan ñu déggoo ci syndicat yeeg ñeneen ñiy mer di coow aussi ñu leen di déglu à temps parce que déglu leen à temps mën na désamorcer bombe bi ba du yegg fenn mais réew aussi mënul nekk réew moo xam ne secteur boo jël mu ngi en évolution loolu en tout cas auguréwul en tout cas woonul mënul ñoo yaakaar loole mën na ñu ngi à l'abri de secousse mënul ñoo yaakaar loo ne dañuy dem ci suba yoo xam ne dafay leer ak jàmm te loolu moom ñun problème yu bari la ci ñun parce que bu ma yeboo ma ne ci jaaxle la ñuy dugal te loolu mën na ñàkk mais nag ki yor solution bi mën ko régler aussi état bi la mhm. donc autorités yi nañ xool nu ñuy def ba mën a waxtaan ak nit ñi dalal seen xel dalal leen mhm. parce que seen première mission mooy ñu indi fi sécurité andi fi jàmm andi fi dal parce que leneen lu fi waay def rek dafay fekk condition yooyu moo am parce que bu jàmm amul sécurité amul bari na lu waay di def doo ko mën a tee def danga ko arrêté te dugg ci utam jàmm. merci beaucoup Senghane Senghor. ok merci madame c'est moi qui vous remercie. Euh, rajo nga bokk waaye itam cadre Diamaguène euh, troisième mandat.